wala su yaqil li qasdihim taxsiisa fi'lin bi fi'l waxta wa thumma waqtiri saaniya min fi'lin sulaasiyin wa zid naxwu thumin wa muntahahu arba'un in jurida wey yoga fi fama sittanaɗa seebo ni jannguloo mu ne wurti hoolum ci moom foo mel nee na leer hmm. baat boo na doo ci moom mu ne amul ci ma yàlla hmm. li maa ngir li nga xam ne fii nekk na ci mene littiqaali ci toxaloo mina saqiili ilal asfali hmm. ndax bayee ko ci kadra muy mas gu diis nga dale ci lam mu koo gën a tee diis loolu lay def muy fi xool ma ne ko man gis naa ko mu ne wa amma qiraatu abi simaal ndax loolu la ci tegu daal abu simaal di jàng wasamaayi saatil hibuki hibuki muy pion fa ala taqdiri subutiha ci nattale saxam su nattale ne njàngin wu ñëw sukkandiku la mu awwalatun lu ñu tawil la ñu ko war a tawil abu simaal nag faqiila hmm. atbaan haa littaay hmm. dafa ne lim doon mooy wasamaa'i saatin hubuki hmm. kasaraat saa gijji moom la feeñal ci hubuk moo tax mu ne wasamaa'i saatin hibuk waqiila tadaaxulun bayna luxatayn ñee duggalante ñaari luxa la hmm. ndax dañoo ubuk muy fuol mel ni honu te hmm. ñee ibik muy feel mel ni ibik hmm. di jëfandikoo ci faagi luxa ibik jëfandikoo ci ayin bi luxa ubuk kon ñaari luxa yu duggalante wa fiolun fiol umira nee na lew na ko wala tu sabaanu fiol te mooy fuhel fuhel boo ko dee yëqillu dana néew ci nit ñi hmm. ma ngir li nga ne fii nekk na ca min al intiqaali ci toxaloo min al asfali ila saqiili hmm. da nga bàyyee ko ci ndam gi gën a diis hmm. dem ci kafrat koo diis hatta amale woo xaw mu baam nañu ne li am baam mooy mu ne baam faa jaaboo tontu nañu xam du il turu giir turu giir la ak ru im li ku signal buntu suuf daal na mu maa man man koo laajee mu ne la. dem ci loolu benn benn benn. waaye nag war bu jeexul lay alee muy waxeen luxatul muy waxeen. li xasee ngir teel a jublu ñoom waxkati arab yi. tafsir da fi anin jagale fin bi point la. ndax point la te dëkk fin buñ gën a ci lu ñu réeréer. ci la notee. Hmm. su fekkee dañoo gis ne point bi bëriwul ci lirin wala ci la war hmm. hmm. a amee su fekkee dañoo gis ne point amul ci lirin wala xaaliban al qawli bil qilla wa daiman al qawli bil imani laqad bihim ngir seen jublu sax fi sa jaxle jagale ne ci point la li sulaat yi ay nattum mu ne waxtaan na nga fataa asaaniya aji hmm. min fi ma leen ci fin sulasi yin day sulasi. Hmm. comme kataba saraba jalaba sax. Hmm. watumma na nga lamb. asaaniya aji ñaareel min fi ma leen sulasi. waxir te na nga kasara. الثانية aji ñaareel min fi'li sulaasi fi'li sulaasi naa yi nan dañ koy faral di faala bil bari wala yi nan dañ koy lam di faala bil jami wala yi nan dañ koy kasra di faala bil kasri fal awwal aji njëkk ji te mooy faala bil bari yakunu mutaaddiyan kasra wala bi man kasara hmm. waqad yutawa ma dem na ko mu tawa te misloo kenn ndigalal hmm. qad jabara janna hmm. ak diina diina ji al ilahu borom bi fa jabara bu janna jabara faala la min mutamante faala la wasaani aji ñaareel ji damay faala bi dammi la yaati illa laziman lazim wax dëgg yàlla daal léeg bu jàggatee. bi tas mi ni maanaam ci làmbal ko maanaam beneen baat. liggéey bu tas bu tas bu ne leen bi tam mi moom yaa yi ay nam du la yaa. illa ay ay wala ji rek. li wala bikum mutafarrifan daa ji soppatu yaa iya laam illa nubuwa ne ko noonu itam laamam di la jigéen daa nubu ne nubu ya mu yaqal na bu yàq moom lool di mutaaf illa qalilan dara lu digal hmm. ak bàkkaar soo hmm. kànga lu ñu bokk te ñaari itam day am ne luwa hmm. ak sori ak bon dégg nga wala sori wasaalisu aji ñetteel de te mooy fayin la del kabiyaat yi mutaandiyan ni ngi soriya wala di man ni ngi soriya woowu moom salaati naa sori moo gën a bëri moo hmm. hmm. gën hmm. a mel mu doon laaj. wala saa ngi ne ala wala na la saa fi ci ñu la kaari ala si mu ci la li taxul kaari baro. al ala si agar kaari la arwani ak kuréel yi. ak su bëri ala ak ma ngi cëri. jërëjëf. wasit na nga dolli nahu ala qawli man qaala innahu aslun waaw ñun dañuy wax ne fii rasul mustadillan daa di tegtaloo bi am na junna wa buhita wa sulla damuhu ak uhdira ak óori abikata ak waniye bi hajatihi ak suyi reerun ala ma takabbara lam tustamal sëñ waawa. sëñ waawa. waqiila innahu farmun am nañu ne nattu bi du nattu bi dara. Hmm. li tarki idgaami fi soojira. Hmm. ndox laa kenn. Hmm. waaw yaa ngi daje ko jàpp ci suuf ba mu woon si. loolu si xanaa bi si xanaa fan yi yàgg ma. wa ibdaali ak bàyyi ibdaal fii buur yasura dem na. ñaari waaw ñu ngi daje waaw bu nekk yi ñu ngi fa nag soppi yu baax. wal awwal lil kawfiyin wal mubarrad wax ne siira bi siiratu asliya. Hmm. ngay kawfi yi ñu ko wax al mubarrad. Hmm. wasaani lil bisriyin wax ne siira farhiya la. Hmm. ngay bisri yi ñu ko wax. wa kullu naqara an si wéer lépp rek si wéer yi. waxtaan nga fata. Hmm. dumma walla ngana hmm. waktu walla lekka hmm. asali ya aji ñaare min jaalin ci sen sulasi ye te sulasi wo fi tane nga dalina tumina faheli sulasi benn muy faala bil fadi walla faala bil kafri walla faala bil dami ana akun wa muntahaahu day dalu fahel arbon ñeenti arab la in jurri daan digal wax lees na dañaan bu amul benn xaraf ndol man dara mu fi daara léegi daara dina soxla la wa bii duuri ja nekk na ci duuri ja te mooy foxli la alxilaafu bi asal wala cosaan la ci tëgg bi wala tànqam wuyu sat bu doolee bee fii ci fin fin buñ jaay doole ak liñ ca doole doole wala nga daa mën dara ولم يعتبر تاء التانيث قد استخرجت وروض التنبيه على من سيستخرج ونور التوكيد يبدو ان تنتهي لانها غير نتائج في تقدير الاتصال نتائج في نفس الوقت أنت أوديك